soumari.com Kenkeyri le Grand Jaxaay ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf njëkk a fecc taxatu mu jëb géew ñaar fukki candidat ak benn yi jàll ci parrainage gi l'observateur nee na ñu desane leen weneen wu tëbin ubbil yéenekaay bi ñoom candidat yooyee am na yeneen mbir yu ñu war a càmbar ci ñoom laata ñuy bokk ci liste définitive bu candidat yi war a bokk ci présidence li 2024 yi bokk na ci casier judiciaire bu set wecc bokk bu conseil constitutionnel am ci ñoom bokk na ci quitus fiscal candidat yi ñuy jàpp ne dañoo amal réew mi xaalis kenn ca ñoom di Karim Wade ak alamaanu téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñett yi ñu koy toppee ak la ca yoon wax l'observateur mi ngi ciy waxtaan ak isiris Serigne Thiam dib enseignant sër nañu ci xët mu suur soit fay alamaan gi moom mënut a ñàkk exigence fiscale te conseil constitutionnel mën naa sàkku ci candidat yi bëgg a bokk te ñu tëyi leen ci parrainage yi la Sénégal mi ngi wax ne am na ñenn ci ñi leen parrainé te ñu ne leen seeni tur nekkul ci fichier électoral bi loolee mooy li leen jaaxal mooy leen ëlëm nee nañu ne conseil constitutionnel càmbaraat yëf yi xoolaat rëq-rëq yi cam lijjanti ko laata bay di mbuus ñi nga xam ne ñoom la ñu génnee gëm ci yëf yi ñenn ci ñoom di Aminata Touré Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany le témoigné mi ngi laaj est ñoom ñett duñu booloo boole seen doole taxalub alliance ngir dem fare ji akub candidat jàppale na ci ñoo xam a doon cinquième yoon élections élection yi président de la république li tax yéenekaay bi nee nañu mooy ñi ñu tuddee opposition radicale mu di opposant yu metti yi ci réew mi ñoom ñëpp la saas yu conseil constitutionnel yi jatang jéng leen ceene leen ba mënunoo buuse public yéenekaay xëyee ak cooxe gu mu seetlu ci waa Benno Bokk Yaakaar mi ngi ñuy wax ne Aly Ngouille Ndiaye dem na yoona Moustapha Diop kenn xamagul ban tànk lay taxawee ci jamono jooju Habib Sy ñëw na taxaw taxawaayu plan B bu Ousmane Sonko moo waral yéenekaay bi dañuy wax ne waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu deful ndànk diiwaanu Louga dana leen rëcc leneen li leen nar a yàqal ñoom Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle 2024 yi mi ngi ci quotidien ne ñu bari ñu bokkoon ci bennoo génn nañu fa samp seenum dënd doon ay candidat ku ci mel ne Mame Boye Diao ku ci mel ne Aly Ngouille Ndiaye ku ci mel ne Mouhamed Boun Abdallah Dionne ci la war a janoo ak juge bi ab bataille judiciaire source ngi ñu wax ne ku yóbbu séntu ko ci dogal bi état bu Sénégal bëgg jël jëm ci ay vol domestique yu Air Sénégal yu war di déparé ci aéroport Léopold Sédar Senghor li ko waral yéenekaay bi ne nañu mooy su amee suñu réew doxoon diggam ak glace direct news mel ne ku ndax foofee sax danañu fa yegg li tax yéenekaay bi nee nañu mooy ci aéroport Léopold Sédar Senghor matériel ba nee na mes ni menteng ba tax départ loo fab avion baa nga di ko fa teerloo du doon lu yomb ginnaaw jaww ji ñu wax ci géej gi ab dossier le journal bés bi le jour xëy tey ji ci wàllu kaarange gi war ci géej gi mu di sécurité maritime lii quotidien moom ay xibaar la xëy ci autoroute à bi xooli gëstu bi mu xëyee ci jigéen ñi yàlla nattoo ay jëkkër yuy màndi ubbil yéenekaay bi témoignage yi mu fa dajale bu gën a garaaw sa morom nga ne bii la témoignage bi l'observateur fësal ci xëtam njëkk mooy bu femme bi leen wax ne jëkkëram su màndee dafay taxaw di yuuxu nit ñi wër ko mu naan dafa ma bëgg sàkku